je pense que le politique dafa dafa doy waar comme ni ñu koy faral di waxee rek politique du du du biir day xëy rek aussi euh, boo xoolee yeewi askan wi seen démarche ñoom nee nañu ils sont toujours dans l'opposition donc euh, maanaam si biir yeewi askan wi il y plusieurs entités kenn ci entité yi ki ñu gën a remarqué moom mooy taxaw ak Barthélemy Diaz ak xalifa donc vraiment c'est une entité forte mm-hmm. bu Khalifa bu Barthélemy Diaz demee ba am yenn dayoo yi si dëkk bi c'est parce que justement c'est le député maire de la ville de Dakar Dakar si la capitale et cetera et cetera en tant que maire de la ville de Dakar dafa am démarche yoo war a def dafa am taxawaay boo war a am chaque fois que maire dëkk bi mm-hmm. bokkul ci majorité bi dañ koy bloqué ca a toujours été le mhm. mooy maanaam chaque fois maire bi day daw ci ginnaaw yenn yi pour mun a euh, dérouler pour mun a doxal. Mhm. donc li xew léegi mooy que ni maireu dëkk bi si opposition bi la bokk mais dañu dem ba ci biir euh, ñu gis ne par exemple euh, Barthélemy Diaz bu ko Macky président Macky Sall invité ci yenn événement officiels yi comme défilé 4 avril mhm. day ñëw toog en tant que maire de Dakar te léegi les gens de l'opposition en tout cas benn parti opposition bi ñu leen woowee pour ñu toog dañ ne ñoom du ñu toog ak Macky Sall parce que voilà am na ay conflits yu am seen diggante donc tey li nga xamante ne moom la Yewwi def c'est effectivement une manière de rester ñoom de camper sur cette seen position à savoir peut-être que ñoom am nañu charte bu tënk ñoom seen seen ànd charte bi lu ko tënk est-ce que c'est juste suñu paree élection après chacun fait ce qu'il wala est-ce que euh, Yewwi Askan bi de continuer demandoo ensemble élection présidentielle je pense que ça va pas être le loolu on lu sait mais déjà Yewwi Askan bi c'est une forte majorité à l'Assemblée nationale c'est-à-dire Assemblée nationale am nañu un nombre euh, confortable de sièges donc am na ay conflits yoo xamante ne comme politique la rek yenn saa yi da ngay gis deux ku nekk sa intérêt ngay ngay ngay doxal su ma dégloo par exemple euh, le discours de Barthélémy Diaz depuis deux ans trois ci ginnaaw da doon wax chaque fois moom sama candidat nii la tudd Ahmed xalifa xalifa euh, euh, Sall la tudd il a toujours clamé ah musu ko nëbb et que moom nee na moom lay faral si élection yi jot soo mm. amee élection mm. suñu demee ba moom nekkul candidat nag su boobaa dina faral Ousmane Sonko il l'a dit mm-hmm. donc tey jii nii su fekkente ne y a un espace qui s'ouvre pour que justement candidat mën a bokk il va tout faire pour que candidat bokk mais néanmoins da nga am foo bokk yéen seen biir war ngeen waxtaan parce que coow lii yëpp moom mooy. diggante moom ak sonk doomu ndeyam. Mm-hmm. ñoom yàgg nañu ànd yàgg nañu xeex yàgg nañu dem sur le front. Mm-hmm. ñu dem ba léegi fi mu nekk nii ku nekk yaa ngi sànni ay trac sa morom. Mm-hmm. donc je pense que loolu am na leen lu mu affaiblir ci ci ci seen ànd bi. parce que munoo dem dialogue national. alors que yow ñi nga àndal nee na ñoom bu ñu dem jag dialogue national donc ça crée benn confusion si seen biir boo xamante ne pour man même s'ils ne le disent pas de manière claire et nette mm. mais li ñu waroon def mooy lenn képp ku dem si dialogue national bi bokkatoo yeewi mm. nañ ko bind mu parce que menace bi ñu est-ce que loolu dina tax ba Khalifa Sall génn ci dialogue ne bokkatuma si dialogue bi tu vois que je veux donc dafa am ay wax yoo xamante ne wax waxtaan waxu politicien la in ne faut jamais dire non en politique on di dit jamais non on dit peut-être. politique non on dit non, peut-être non on dit jamais jamais on dit jamais non. <laughs> donc chaque fois da ngay gis ñaari ñaari ñaari kii la quoi donc même oui sax du wax oui. Hmm. du ñu wax wii du ñu wax non peut-être la ñu wax parce que suba ginnaaw suba. mun nga wax lenn tey suba mu la nii oui merci <laughs> loolu moom mooy ni politiciens yi dox.